alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane sant yàlla bu baax julli ci sangu sangi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu yëkkati suñu kàddu tàmbali ko ci kàddu nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu suñu teewaay fii dañu ñëw ci délégation bi ñu lim léegi teewal fii son excellence monsieur Macky président fan la yebal mooy fii ci daara suñu waajur suñu maam suñu bàyyi doy fii bu ñu fi ñëwee président nee na kilifa diine ñu fi fekk ñu tàmbali jël nuyoo moom président jox leen ko kon maam Ousmane si ngi jël nuyoo président Macky Sall teg ko sa loxo nga tegal ko ci loxo Serigne Babacar Sy Mansour général des Tidjanes di nuyu Thierno Hamidou xalif général de Bambilor di nuyu le maire de Bambilor le chef de village de Bambilor imam bi nga xam ni mooy kamisa te jël kàddu fii di jël niw yooyu yëpp tamit sëriñ bi nga tegal ñu ko ci loxo sëñ Maodo yaakaar naa bu ko tegee ci loxoom law na ci famille bi yëpp ndax ay magam ñoo ko fi teg mas a raté fekk man dama dem mission fanweeri at ak ñett ñuy def lu mel nii di fi wàcce ay kaamil di fi ñaan yal na ñaan yooyu yëpp boole ñu boole kook ñaanu tey def ko tawfeex ci bërëb bi artisan. xam nañu ki ko sos xam nañu ni fi toogee woon xam nañu yéene bi mu amoon fii am ko ci réewu ku président Macky Sall xamoon xam ne it njabootam te njabootam googu dama ciy jël ñaar ñoo xam ni yàlla dafa def ñu bokk commune muy commune Sangalkam muy Ndeye Marème Gadiaga dëkk Nouvelle Horizon ak Thiané Diop dëkk léegu gi dama leen di seppi ñoom ñaar rek ci bi ma bi ñu àndal te ñu mënoon leen lim wante wax yi daf ñoo xaw jàtt di wax ni suñu réew di Sénégal jàmm rek la fi président Macky Sall di ñaan ndax yàlla dafa def ñu jox ko réew mi dénk ko ko depuis 2012 mu ciy bay waaram ci fànn bu nekk def fi liggéey boo xam ni bu am solo ci wàll wu nekk léegi bi ñuy gërëm imam kamisa di gërëm service yi nga xamante ni ñoo def liggéey bu am solo fii ràññee ci Senelec muy courant na ay jamono bu ñu fiy ñëw ci gàmmu gi ci guddi gi li ñuy njëkk xalaat mooy fu ñuy loué groupe électrogène yaakaar naa ñu tàmm ñëw fii xam nañu loolu boobu ba léegi de dégguñu benn groupe bu bu riir loolu li ko waral mooy taxawaayu président Macky Sall bu mat sëkk du courant bi ñuy togg ci Sénégal doy du ma ne nag dëkk yëpp am courant mais li ñuy togg tey ci Sénégal ci courant doy na ndax jamono bi mu koy jël moom président Macky Sall juróomi téeméeri mégawatt la Sénégal amoon tey jii am na junni ak juróom benni téeméeri mégawatt de production bi muy jël Sénégal dem ba dikk bi jafe na ci lu wér fanweeri kilomètre ñaar autoroute la amoon tey jii am na ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom kilomètres autoroute donc il a Touba bi jëmal ci dëkk bu sell boobu di Touba Mbacké fan yii paase daloo nañu loo xam ni bëgg nañu képp kuy nekk fii ci région de nga dem dugg ca muy teer muy saxaar boo xam ni saxaarul nag ndax courant moo koy doxal na réew yu développé yi amee waaye waaye lu tax ñu ñu jomba am saxaar boo xam ni courant moo koy dawal mu teer parce que démboo njaay port bi gën mag ci Afrique de l'Ouest muy portu Ndayane te une bonne partie bokk suñu département mooy yéen teg na ko pour waajal li ñëw ëllëg beneen bi mooy Sénégal dafa am xéewal bu fi am muy pétrole ak gaz pétrole ak gaz nag boroom xam-xam yi wax nañu ni ay junni junni junni junni at la ko suñu boroom di togg pour mu mën a nekk ci biir suuf pétrole ak gaz bi na fi wante ku nekk ak sa wërsëg nee nañu moo waral ay gaaf ndax période Senghor président Senghor pétrole baa ngi fi woon période président Abdou Diouf pétrole baa ngi fi woon période président Abdoulaye Wade pétrole ak gaz baa ngi fi woon mais ci période président Macky Sall la feeñ loolu nag dañuy ñaan ñu ñaan mu indi leen jàmm Sénégal ndax réew yu bare yu am pétrole ak gaz fa ñuy mujjee mooy ay te du amal njariñ benn askan wu fa ne loolu tax président woote waxtaan ndax nag moom waxtaan dafa doon lu am importance si moom c'est un homme de dialogue un homme de consensus woo gouvernement woo parlement bi muy député yi woo société civile woo opposition ñu waxtaanee sept cent milliards yooyu ñuy am ak mu jot bu pétrole bi ñu commencé exploité naka lañ koy jëfandikoo loolu lu am solo la wante bu ñu fàtte ne àddina bi jaxasoo am na ci muy mbas mi mbas mi demagul mi ngi fi nañ ko bàyyi xel su ngeen seetloo lépp lu am Europe ci mbas mi day jël diir rek mante dina egsi muy quatrième vague bi ñu nekk nii dëgg la boroom xam-xam yi sëriñ bi wax nañu ni variant bii ñu am muy omicron garaawul garaaw boo xam ni dina yóbbu nit ñu bare ci réanimation wala mu jël seen bakkan wante attention ñi am réanimation mi ngi commencé yéeg bakkan yi ci génn yépp mi ngi commencé yéeg ñu bàyyi ko xel ñaari yëf rek rek pour le moment moo ñu ci mën a aar bi ci njëkk mooy nañu faral di takk masque ñaareel bi mooy waay waay nañu dem ñàkku boroom xam-xam yi gis nañu ni képp ku ñàkku même bu la mbas mi dalee du la sorol waaw parce man nga ñàkku ma ne la du la sorol loolu ñu am xam-xam ci gis yi te président Macky Sall indi na ay ñàkk yu bare fii wax ak yéen juróom million dose ñu ngi fii ci Sénégal indi nañ kon nañu ñaax nit ñi ñu dem nàkku ci góor jigéen mag ak ndaw nañu ñàkku ci ñàkk yu amul danger ñun ñi ñàkku na am naa ci sax ñu bare am nañu ñàkk jël seen deux doses mais am nañu ñàkkoobu te bare nañu kon bu ñu toogee ci jotaay yu mel ni ngeen may rek ñu lancé message boobu nit ñi man ko yóbbuwaale bokk na ci préoccupation gouvernement bi bokk na ci li président Macky Sall bëgg nit ñi def ko ñu ñaan it ndax ñaan man na fonk musiba ak te bas nii musiba ak balaa te jotaay yu nii sa lii ñaan li fay ñaan man nañu koo fanfal nañu continuer di ñaan kon maam Ousmane Thierno Amadou nañu ñaan mbas mi jóge ci suñu réew ci àdduna bi ba ñu koy fàttaliku ndax c'est pas la première fois bi humanité amee ba léegi ay épidémie di am mais épidémie yi fi mas a yëpp ak xam-xamu nit ñi fexe nañ ba mu dem ak ñaan yi may daanale ci ci ñu jëm ay fan sorati bu mu ñu jotee tey ci la campagne officielle pour élection lég euh, euh, élection municipale ak élection départementale ñu koy def loolu nag bu ñu gulee tàmm nañ koo def Sénégal réewu démocratie la maire yi bi ñu koy commencé voter Sénégal depuis 1872 avant même les indépendances kon nañu ñaan ñu def ko ci jàmm ak salaam sëriñ bi wax ko dégg jàmm ak salaam borom noppi bu yàgg wante comme nit dafa def ci moom fitna ku nekk day mais moom pare na xam nañu kuy toog ak ku dul toog ak ku manti toog nañ ñaan yàlla mu doon loo xam ni moo gën ci askan wi le 23 janvier bis la ci bis yi rek mais le 24 day am nañu fexe ba le 23 moo am jàmm le 24 nit ñi dem xëy dem toppatoo seen yi soxla ni suñu borom tudd yi ñooy toog ñu toog te lépp nag ñu jublu ko ci développé suñu réew développé suñu gox goxam loolu laa amoon ci ay kàddu di leen gërëm. di leen sant ba njëkkee sëñ Ousmane jërëjëf yàlla na yàlla fay matal ngeen wëlëra lool bu leen neexoon ngeen ne feebar bi bari na yitte yi bari na Tiwaawan ubbeegul waaye jërëjëf nii la mag ñi àndewoon nii lay sët yi ànd woon nii lañu bàyyi wanoo waxoon ñun ci tànk yooyu lañ nekk yàlla nañu yàlla fayal Thierno Amadou Ba yow ñoo bokk lépp bu ñu lay sant sax dafay nuru la leen ñun la sant ndax bàyyi la woon ak maam yi ba tey jii yow yaay magu Maodo yow yaay kilifa moodo loolu suñu borom moo ko def yal na yàlla fay kaddu yi maa ngi koy waxee suñu mag Cheikh Gaye ak Pape gay ginnaaw loolu Serigne Ndiaye Gueye bii nga xam ne jamono la jógee mooy suñu tawu kër dafa bàyyi yitte yëpp ànd ak njaboot ga ñëw taxaw élage mooy suñu kilifa sànq dama ko dama jox kàddu bu ma dee doxalal ndax ñun yàlla dafa ñoo dimbal ñun ñëpp benn lañu famille Gueye amuñu doomi baay ak yi ndey amuñu ko koo xalaat loolu amu fi waaw koo xalaat amu fi boo leen gisee ñu bari sax doo leen gis mooy dañoo wóolu suñu rakk muy Maodo bàyyi samp ko ñu ànd ci ak moom ci xol bu sel muy doxal di yokk loolu moo tax moo tax ñu bari dañ ñu gis doy nañ ko doy doy nañu ci biir doy nañ ci biti ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ngeen xam ko yéen ñëpp mooy suñu loxo mooy suñu tànk mooy suñu lépp ndax bàyyee ko fi sampoon te ànd nañ ci xol bu sell bi ci topp mooy euh, sëñ Omar ñoo lay sant bu baax di la gërëm euh, di wax ci yow ñun mënuñu ko ndax ànd bi dafa yàgg ànd bi dafa yàgg waaye na rafet njort bu baax ku am wëllëre nga ku baax nga ku sell nga ku am xol bu rafet nga ndax bi ngay ñëw fii di ànd ak ñun amul yoon amul dara dara ne ko fi tànt yu baax sax amuñu ko nga ñëw ànd ak ñun ci loolu ba tey jii te loolu ba faw lay doon na nga rafet njoot sa bopp bu baax a baax a baax loo bëgg yéene ko sa bopp rek yàlla dina la ko defal incha allah man xam naa ci dara xam naa eh, xam naa lu bare bare bare dama dul wax rek ñaareel ba monsieur le maire ñoo lay sant di la gërëm ngañ yow Omar moo ñu booloon ak yow dem nañ ci ngañ dem leen ci ngañ lu mu wax maa ko wax dem leen ci ngañ dem leen ci ngañ Omar moo moo ñu boole yow moo ne dem leen ci ngañ dem leen ci ngañ mujj na sax duñ gis Omar ci ci duñ gis uh, Omar ci ci ngañ lañu ne loolu ànd bu yàgg la ànd bu ànd bu sell la yàlla na ko yàlla saxal monsieur le ministre ñoo ngi sant sa ñaari préfet te boo toogee te santuñu ñu leen dafay mel ni leneen la sëñ Babacar bi nekk Tëngéej bi nekk Babacar kan nekk Tëngéej bi ñu boolee ak moom ba tey su ñuy def CRD moo ñu koy gën a bëgg liggéey bi ak lu dul loolu lépp lu ñu soxla ci tund bi mu taxaw ci ku fi ñëw suuf préfet ba ci sëñ Basiru moom lañuy ñuy booleeg moom ba nga xam ne léeg-léeg sax du jar ñuy dem sëñ Basiru moo tax ñoo ngi lay ñoo ngi lay xamal ñooñu ñoo leen ñoo leen sant di leen gërëm ñu baax lañ ñu sell lañ sans bruit lépp loo xam ne jàpp nañ ni baax na ci kër gi sëriñ bi soxla na ko daara ji soxla na ko ñu taxaw ci moo tax lu ci bari bari doo gis ñu egsi ci yow moo tax yéen ñëpp ñoo leen di ñaan sëñ Babacar san rek ñoo lay ziar di la ñaan bu baax yàlla defal la defal la tawfeex na ngeen na ngeen xam ni kër gi ngeen ñëw muy daa muy daara ji di daari Alaaji Ahmad Gaye Tamba mooy mag mu baaxoon la su ma waxoon baaxoon sax dafay mel dafay jóge mag mu baax la bu yàlla teral bu ñëpp bëgg muy borom alxuraan te Omar yow daf la bëggoon def la ci boppam ana Omar Gueye ba xam dem ngeen ci moom loolu doy na na la wóor ni lépp lu gor di bëgg di ko wut soo ko bëggee di nga ko am waxuma ko di di woote baatin wala daal déedéet dama xam ne boroom xol bu sell nga te bëgg bëgg nga ñu ñun def ñu sa xol lu ñu woote yaa fay jiitu ñoo lay sant di la gërëm sëñ Ousmane nga xool ñu ko sëriñ bi xamoon nañ ni jàpp na Omar waaye na ko wóor ni Omar ci doomi góor gi la bokk doomi xol la mu ngi taxaw biir ak biti kenn mun a wax lépp ci kanamam surtout surtout surtout suñu ñaari préfet yi sañ Babacar ak sëñ Bassirou ñoo ngi taxaw biir ak biti ak ak ak gouverneur Dakar mm. gouverneur Dakar moom ci ci ci kër gi la mm. moom euh, lépp la waaw moom moom lépp la sëñ ngañ ñoo ngi lay sant di la gërëm di la sant di la gërëm bu baax a baax a baax yow ci kër gi nga bokk waaw ci kër gi nga bokk moo tax nga ñëw toog suuf na la wóor na yow it xol bu sell nga yor xel bu laab nga yor man waxuma waxi politique ci diggante nit ak nit ndax ndombay tànk yëpp léegi ci kanam tuuti kenn du ko tuddati kenn du tudd préfet mm. kenn tudd ministre kenn tudd dara ci daara ji rek ah. te ñun ñëpp dañuy dawaat ci daara ñun noonu la ñuy jàppee te bu ñu xasee ba jàpp duñu baax yàlla nañu yàlla fay monsieur ministre yàlla nañu yàlla teral da nga bëgg yàlla ko yàlla da nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal jërëjëf sëriñ bi nga baal ma kàddu yi rek waaw waaw waaw sëñ sëñ Mansour ñoo lay ziar bu baax di ziar bu baax a baax a baax yàlla yàlla fay sëñ Abdou jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf. waaw ñii daal am. muy monsieur le ak sëñ Ngagne. ak sëñ ñaari préfet yi ñaanal leen yàlla teral leen. ana bés si géej ana bés si géej. yooyu ñu ngi lay sant tey ku baax rakk ju baax yàlla na yàlla fay. boo nekkoon sa biir yi mag du mel ne nii nga war a doon yar ak teggin lañ la xamee ci biir kër Seydi Hadji Malick moo tax ba kàddu yi. حق قدره ومقداره العظيم الله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 Давай, мы тут. Давай, мы тут. Давай, мы тут. jëm na. ana ngañ Diop ana ngañ. ana monsieur le honorable député maire. bismillah bismillah bismillah. tey ñu ngi fii ci. Euh, kaay ni Ndiaye Ndiaye inauguration bi sëñ bi yàlla nañ ko def amiin ci barke amiin fekk ko ñun ñëpp amiin ceer noonu waaw bismillah يكون حسن الخاتمة إن شاء الله الحمد لله yëkkati leen birig bi nag incha allah. birig bi. Hadj Malick bisimilah. Hadj Malick. Maodo d' accord. joxal Maodo. waaw ana Kamasa ana Kamasa ana Kamasa. joxal Maodo rek. Maodo yàlla na yàlla. billaahi wallaahi dina la si jàpp ba nga xam ne jàpp mais Amadou mooy directeur campagne de Thierno dama la ko fàtte woon Amadou Amadou Gueye mooy sama directeur de campagne. Ah, voilà. amiin amiin amiin non non Amadou Gueye doomu doomu Baye Gueye bu mag nii seen taw nee na ma maay sa directeur de Kapp Mbaye jërëjëf Amadou Teel Amadou Teel xaaral xaaral joxal Cheikh joxal Cheikh maa ngi nii maa ngi nii sa gars yi wax doomu lañ may leen sëñ bi Mbàkke mu tal mu ñëw yow ana mu yow bay la kay boor bi jox ko aw bismillah bay la si sa barke waaw waaw ñi ngi àggale rek nga ñëw loolu am na lu muy tegtale loolu ala shay insha allah joxe ñaan bakke bakke balle bakke balle jërëjëf jërëjëf bismillah joxe ñaan ñu jàng Fatiha ñu jàng Fatiha ayatul kursi falax yi ak lixlaas falax ak naas ñu ñaan suñu borom def ci jàmm te nangu ko ak mboolem jullit سير إبراهيم وعلي ربنا تقبل منا Cerno honorable na bala ngeen dem ngeen xool maquette bi bu defee xool ni nga xam ne jumaa ji noonu la fas yéene bind ñu ubbeeku nii tuuti carré ci biir 600 mètres carrés yëpp ñu gis ci mu am euh, espace euh, famille morgue morgue bi moom morgue bi moom la ñuy gis noonu ah. mu am it aussi quatre quatre quatre toilettes loolu yëpp nekk ci biir euh, nekk ci biir kii bi donc ñaari soroor yi muy jël moom mooy ah. nekk nii ñaata ñaata mètres carrés la 600 mètres carrés 600 mètres carrés ci 600 mètres carrés moom mooy surface bâtie surface bâtie waaw ci biir 600 mètres carrés yi ci la toilette bi nekk ci la morgue di nekk espace bi nga bi ne bii pour soxna yëpp aussi ci la ñu nekk préparé ci ay espace vert ak yëpp moom moom moom moom lañuy euh, gisaat fi couple bi aussi mu jëm ñu am ko nii couple bi ñu am ko ci si na bi sur 12 euh, mètres léegi moom moo moom moo ñëwaat aussi nekkaat nii moom moo nekk nii aussi ba léegi euh, plan bi le plan de démarrage bi moom moo nekk nii fii aussi ñu am fii internat bi bi ñu avancé nii ñu am fii bu prévoir fii ñu am fii internat bi bi ñu am fii euh, euh, dortoiru garçon yi ak aussi dortoiru fii dortoiru garçon yi bu ci nekk dina jël benn bu ci nekk 200 personnes dortoiru garçon yi ak dortoiru fii yi am 7 euh, toilettes ci côté góor ñi amit aussi sept toilettes ci côté jigéen ñi lii mooy doon réeru société bi réeru société bi moom lañ nekk noonu léegi premier étage bi moom lañ am fii premier étage bi aussi dañuy gis ba léegi mu am ñaari salle de classe ci kaw yoo xam ne salle de classe garçon ak fille amit aussi seen ay toilettes nene ak bibliothèque bi ñu ñëwaat ni amaat aussi salle de classe euh, fille yi nekk ni amaat aussi ak seen toilettes mu nekk ci premier étage bi donc ci ci deuxième étage bi moom la am ni salle de conférence bi ak chambre de profit am terrasse bi amit aussi réfectoire femme fi nga xam ne foofu la soxna yi di xewlu amit aussi réfectoire homme fi nga xamante ne bii foofu la góor ñi am seen ay cuisine magasin ak yëpp donc ginnaaw bi ñu def jumaa ji yëpp ba pare lii la ñu xalaat mu nekk loo xam ne moom mooy nekk dormitoire yi mu nekk rez-de-chaussée premier étage ak troisième étage nekk loo xam ne daal sëriñ bi Thierno monsieur le maire ak ñi nga xam ne ñoo daje fii yëpp lii mooy projet bi nga xam ni moom la sëñ El Hadji Maodo Malick Gueye naal ànd ak ay magam ak waa tund yi yëpp ñu bëgg ñun ñëpp ñi fi nekk kenn ku ci nekk góor jigéen mag ndaw jàpp ci ba lii ñu réaliser ko. monsieur le Cheikh nee na monsieur le maire nee na monsieur Cheikh Ndiongue nee na monsieur le maire nee na def na ci 10 tonnes en attendant nee na buy si campagne di ut ñaan ndax seen naturel ndax seen naturel musuma dem campagne musta campagne te ñëwuma ci Maodo te ñëwul ci Maodo mu ñaanal te saa yu ci Maodo Maodo ñaanal mu ñaanal ko yàlla may ma ndam yàlla may ko ndam bëgg naa bu muy ñëw bëgg na buy ñëw camion bi camion bi bii yëpp ciment bi bii yëpp ciment bi moo may jiitu moo koy jiitu mu àndaale dafa ma gisul rek bi nee na dafa am lu ma gisul ci plan bi présentation bi présentation bi